you suñu mbokk internet yi nuy nañ leen jox leen seen wàccuwaay ba mu mot sëkk nee naa leen jàkkaarloog yéen saa su nekk daf may neex ndax seen bànneex moom mooy suñu mbégte ni ñu koy defee nag toujours ci seen émission zap série ak seen rubrique revue de série tànn ak tànnal lañ leen ay quelques séries yoo xam ne dañu fas yéene waxtaanee ko ñu ciy njëkkee moom mooy choix de vie choix de vie nag nekk histoire boo xam ne dafa fréquente ci société sénégalaise ndax yàgg nañoo dégg ñu naan garab bu la sutul du la may ker ba tax na kii di aadama kat taxaw na temm pour tas say doomam boobu nga xam ne mooy yaama ndax kii di Assane kat di jëkkëru yaama yàlla daf ko nattoo mu ñàkk waaye yaama nag nee na moom tamit taxaw na temm pour continuer sëyam boobu ndax bi muy dugg ci Assane toppewu ko alal mbëggal moo ko ci dugaloon aadama nag def na pexe bu nekk antuwut li olof njaay naan teel a nangu da yombal dóor te ku nangu lu yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex toujours ci biir choix de vie ba léegi ñu gis ne Assane ñibbisi na ginnaaw bi mu defee 11 ans àll ñibbisi na nag waaye indaalewul dara li ñuy laaj kay mooy xaalis bi nga xam ne mi ngi ko doon versé kooku di mu jàppee woon comme papam pour mu tabaxal ko kër xaalis boobu fu mu mujjee cey Amina bandi Thiès bi xale dérangé yëkkati na un million nag teg ko ci loxo copain boobu pour mu takk ko may laaj ndax bëgg jëkkër jar na yenn yi waaye ginnaaw jamono ji nee nañ faru rob sax dafa jafe moom tous les moyens sont bons pour am jëkkër buñ jógee ci choix de vie ñu jàll ci sëy bi 2.0 sëy bi 2.0 nag jamono ji ngi yëngal àdduna ndax kat man nee naa su màggee damaa bëgg a mel ni musa ak Aïcha ndax seen kër zéro stress la ñuy dund kii di Omar nag di euh, cousin Moussa ataayaloo ko de lañ ko sant waaye defu ko yëkkati si mokaan ne ko pëy ci biir ataaya ga instant yi nag kër ga màbb na ba zéro fi mu toll ni kay Aïcha gorom bi nee nañ tengeleng buñ jegee ci sketch boobu nga xam ne moom mooy sëy bi 2.0 ñu jàll ci wiiri wiiri ndax gis nañ ne kat Daddy Japon fi mu jàppoon ba léegi bàyyiwul ndax dem na ba kidnappé kooku nga xam ne Modibo di ndax lan ndax empêché Adja Soda marié wa ak di Mangane dafa mel ni plan contre Lalia ak Junior mi ngi a Junior demandé na mariage kii di Lalia. li ma kay deux pour un homme ndax Miss Gueye fim toll ni engagé wu néna du baye junior de té dafa dem ba mbeugël fekk ko ci ci sen plan boobu nga xamné dañ ko defoon pour détruire relation bobu non yeen mbokk internet yi ma indi sama question teg ko ci table bi di xaar sen réponse li ma leen di laaj moy ndax yaakar ngeen né relation junior ak Miss gay. lu mëna nek la ginaaw bu ñu njortee Papa papay junior kat moy ki nga xamné mo wara violer lalia wala diggante lalia ak junior lui continuer là. Mangi ngi xaar seen réponse ci sen ci commentaire yi laataa may tàggatoog yéen nak dama def duma def lu remercier ki nga xam mom moom sama SDC ñu naan ko Fat Bintou Anne alias Binouche depuis Mermoz ci robe bu rafet bi ma génnee waaw di ko bu baax yeen aussi di leen jox rendez-vous très prochainement ci sen benen numéro Zap Série jaa ngeen jëf